ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi dellu si bu baax ci histoire gi surtout fàttaliku Cheikh Maodo Fall bi ndax da euh, ku ne xam na ne fee ca parcelle dafa am mbedd bu ñu jëloon tuddee ko Cheikh Modou Fadal waaye mi ngi gën a siiwee ci angal suñu fàll euh, ci jamono booba euh, monsieur Tambay Ndiaye moo moo moo moo nekkoon maire parcelle wala dogal mu sakkoon ko ci moom moom it mu mu mu commandé ko conseil yi ñu wote ko wutal ko këyit maanaam délé def délibération ma tuddee ko Cheikh Maodo Fadal ñu inauguré woon ko nag le 16 novembre 2004 booba tey nag.

ci soppeem yi ñu jëm xam kan mooy Cheikh Modou Fadal ak Cheikh Modou Fadal naka la daan doxé ak Cheikh Modou Fadal naka la daan taxawé ak Cheikh Modou Fadal naka la daan jëfé ci fan yépp ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne almaru maa man a ahaba ku nekk ëllëg eh, ka nga sopp yéen ay bokk nekk kon nag eh, dana baax nit ki boo ko bëggee nga di ko roy roy ga nag day tax nga man ko def mooy nga xam ko bu baax wala ñu xamal la ko ngir sëñ fallu par exemple nga seigne sëñ Fallu nu ko yàlla muy Cheikh mourou Fadal nit la ko xamne ku yaat lo woon nit koo xamante ku ëmboon ñepp la nit ko xamante ku bari won yermande ak ak yu bari ak yu bari nit ko xamante ni bi daf daan wax naan euh, doomu adama ma ngi koy ma ngi xol ci mu war xad karam bani adama mo waralon mu mu njaboti ñepp ba tax amul won xajj ak seen ak jikko yo xamante ni bi yalla defaloon na ko jikko yo xamne bi dana bax ñiko ko sopp xam ko man ciaro ngir ëllëg Cheikh Mamadou Fadal fu mu ne nga nekk fa ndax dañuy wax naan nit ki boo ko ba bëggee it da ko war a roy moo tax nit ki booy bëgg dangay bëgg ku baax booy bëgg da ngay bëgg nitu yàlla ngir ëllëg nga mën a mucc ndax loolu li ñu ciy jàngale mooy tey bari na ñoo xamante nit àdduna yi bëgg nañ leen bëggeel goo xamante ne bii gu doy waar la te te loolo loola naa ne ku ne xam ne amul benn mucc moo tax dañuy wax ne mu nit boo koy bëgg da ngay bëgg bëgg nitu yàlla nga xam ne ëllëg ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ëllëg fu mu mu nekk nga nga nga nga nekk fa dañuy baaxoo chaque ñetti at wala ñeenti at ñu tuddee ko kenn xam nga bu njëkk ba ñu ngi ko tudde alaaj Mouhamed leen Bamba Falilu bañ ci tegaati ab diir ñu tudde ko Cheikh Maodo Moustapha Falilu bañ ci tegaati ab diir ñu tudde ko Soxna Jaaratu Mariama Bousso bañ ci tegaati ab diir ñu tudde ko euh, Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ren ji nag ñu war koo tudde Cheikh Aliou Diouf Lambaye Cheikh Aliou Diouf Lambaye rek mooy waajur Cheikh Thierno Diouf Lambaye mi xam ne moom ma meññ moo meññ sama waajur ba noppi nekkoon koo xamante ni mag ñi àndoon ak Serigne Touba la te te te Serigne Touba gërëmoon ko ngërëm lu fës mooy ñoo ñi nga xamante ni bi ñoom la Cheikh Moussa Ka di wax ne ñoom ñoo jaayante woon ba ñuy dem ci Serigne Touba leen woon bu ngeen dem ci Serigne ñu rey leen ñu ne nag feeg rëyu ñu danañ dem ci Serigne Touba ñooñu ñoom muy Cheikh Aliou Diouf Lambaye ndax ñett lañu woon muy Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane Serigne Mamadou Mane Serigne ko Cheikh Moussa Ka doon waye ci way rek nee ca mooma la tëñtanoor kalaame seexi bawal yi ngir bëgg fay lislaam ji jarbaat ba moo demoon tuubi ndeyam di jooy mu naa ko tuubi bi Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane sëriñ Mamad Maane sëriñ Aliou Diouf Lambaay ñu la ko daane keroog da leen woo fa pencum Lambaay leen di leen tàggaleeg laxasaay keroog da leen a boole sot ci wunbal ñuy kenn kenn farba jaangi darbaat mu bocc ay gobat di feeñal damm di boole dóor yoo amul far jàmm te naan ba leen Cheikh Bamba mbaama ren ni murid yëpp ma nga naan ba mbànni murid naan ko Bamba nas na ruuy yow ma alas yow faral tey nooyi sëñ Momar maa ne ko tontu ca booba ne ko da ngay dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomb tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk dag yéen tes penc ma daal di jaxasoo muri di xaaj dag yéen a tes penc ma daal di jaxasoo muri di xaaj mbër ma daal di laxasu mburi ñëw Touba xibaar ko Bamba mu xëy ne ñaane leen tes naa jël ba ceddo yi dem kalaame ko borom ndar mun naa leen déggeen mokki ba ba mel ne aw dar ca moomoon la tañ tan narmeelu te te boobee la rey Massa mi nuy wandeelu maanaam ab yaay yooyu Cheikh Cheikh Moussa Ka moo koy woy seen histoire ñoom waa Lambaay yooyu léegi kenn ci ñoom muy Cheikh Aliou Diouf Lambaay moom la ñu tuddee Cheikh euh, sur euh, Cheikh moom la ñu tuddee ren suñu Cheikh Mouhamadou Fadel bi. ñu ngi ciy woo Sénégal yëpp mën naa wax ndax Sëñ Fallu dafa daa wax naan maay Sénégal ndax Cheikh Modou Fall dafa waxoon dama wax ne bi mu fii nekk dafa nekkoon ndey ndey ju Cheikh mën naa ne Sénégal yi yëpp la njaboote moo waral ñëpp bëgg ko man gëm naa ne Cheikh Modou Fadel amul ku ko ku ko bañ loolu waral bu ñuy wootee ci moom jàpp naa ne woote nañ Sénégal gépp amuñ xaaj ak seen ndax Cheikh Amadou Fadal ñëpp ñëpp ko bëgg defe naa ne ñëpp ñëpp it la am wàccuwaay kon nag looloo tax waral ñu woo ñëpp jàpp ne bis bi bisu ngëneel la euh, jàpp nañu bis bi bisu bisu bisu jël fa ay jël fa barke la bis la boo xam te ni bis bu bu bu war a ñëw pour profiter ci ci lu baax ndax gëm nañ ne loolu rek lañ fay woote. may damay wax toujours damay wax ne sama objectif mooy man toujours lépp loo xam ne maa ngi koy defal maa ngi koy taxawal mooy tàmbali ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi tey lépp loo xam ne maa ngi koy def it sakkuma ci lenn lu dul nag ngërëmal ngërëmal ngërëmal sëriñ Tuubaa te jamono jii dañoo tool ci dañoo war di taxaw di ci seen kàddu di wax naan jamono ji dañoo tool foo xam ne ñi war a wax dañoo war a wax ndax xam ngeen ne نين كي موجود جمرة نخسين توبا أما أبي أيوه هنا هذا هذا آخر زمان أحبه زمان لكسرة الحسيان في البلدان وكسرة الأملاير والأسلام وكسرة الموت على الأخوان لأن نين خم جمرة جي جمرة موجود يستي جمرة تسخول سين توبا أبي هلا أيوة نمياك غير بار بارين موي كريوي أك بارك ديجي تنيني أك بارك وبي أك جانغوري تكون خم نجمرة جي سين توبا ba muy wax loolu boo yaakaar naa leen ma téeméeraat kon nag dafa mel na jamono ji lay waxal kon nag dafa war a tax ñëpp wëlbatikuwaat dellu ci lu baax xam ne lu baax rek mooy lu am solo xam nga lu am solo ci àdduna mooy lu baax ndax àdduna dunyaa moom passage la boo xam ne euh, lu lu rëy rëy rëy ak lu mu yaatu yaatu yaatu ak ak ak loo ci am lu mu bari bari bari bis dana ñëw mu jeex nga ñàkk ko dem ci foo xamante ne bii du du jeex li wax ne max suñu booy wax ci alxuraan ne maax indakum yan faddu bu maa indi lay baax kon rek day baax ñëpp xam ne nit ku nekk da ngaa war a nekk rek ci lu baax ndax lu baax rek mooy lu am solo ndax lépp loo xam ne yaa ngi ci nekk lu dul lu baax lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg lu mu neex neex neex neex bis dana ñëw nga rëccu loolu war nag ñun ñuy profité ci occasion rawatina suñu jamono bi waaye rawatina fii ci ndakaaru ñuy woote di sensibiliser di gën a yee li tubaab di wax sensibiliser bi gën a yee ni ndaw yi nit ñi waaye rawatina ndaw yi ñu xam ne lu baax rek mooy lu am solo lu waaye ne lu dul lu baax na na ko bàyyi te nekk ci lu baax war a sax suñ slogan ci surne fàttaliku Cheikh Modou Fall bu ngeen xoolee affiche yi da ngeen ko gis abiyaat bi sëñ Tuubaa wax fa kull man baadara waxta sirar la xudaa isra waxtal kibar képp koo xam ne ba gaayo ngi sa waxtu ndaw ci njub di nga noppalu sa waxtu mag loolu mooy suñu slogan moo waral ñuy sensibiliser xale yi ndax nit dana def loo xamante ni xëy na xamul conséquences yi kenn dana wax loo xam ne xëy na xamul conséquences danay dem foo xam ne xamul conséquences dana dem foo xam ne xëy na xamul conséquences ya ko cay fekk loolu dana baax nu xamale ne leen lu baax nag mooy lii te li li lii moo koy maye lu bon a ngi ni mooy tund ku leen comme ni ko sunu booy wax ci alxuraan rek xisbullahi ala ina xisbullahi xumul mafiroon xisbu seytaan ala ina xisba seytaan xumul xaasiroon kon nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi woo nag Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn ci bisu Cheikh Mor Fall nga xam ne ñu ngi koy war def incha allah samedi bii di ñëw 25 Euh, saamil bi ca foire internationale de Bamba jiital ko moo ni ram yàllaw ku sopp sëñ fallu booy dee tabbi jannatu ku noonu sëñ fallu booy dee naari yàllaw ku sopp sëñ fallu booy dee tabbi jannatu